daray tappale walla daray njuuj njaaj taxuñoo jóg li ñu jóg li ñu tax a jóg mooy dem dagaan baatu sénégalais yi ay candidat lañu Papa Djibril Fall candidat la ak ñi mu àndal ci élection législative yi nga xamante ni ci la ñu jëm le 31 juillet prochain incha allah sunu jaar-jaar ak liggéey bi ñuy def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 waxuma ne élection ñëpp mën nañoo bokk déedéet xam nañ ne jongante boo gis dañuy def ay critères waaye réew dañ koy waxtaane te loi bi ñu koy def waxtaane wuñ ko procédure d'urgence lañ ko def daal di koy salfaañe li nga xamante ni moom mooy principe yi gën a élémentaire mooy que sénégalais bu nekk war nga mën a jóg dagaan sa baatu askan ci sa teeyu bakkan parenage boobu nag wut ko lu jafe la loolu moo tax yéen sénégalais yi ak sénégalaises yi suma yaay yi suma ma papa yi suma rakk yi su mag yi suma ma yi yi nga xamante ni yëpp jamono bu ne yéen a ngi may témoigner seen affection seen mbëggeel seen cofeel ak surtout seen ñaan te mosu leen gis suma ma jëmm dama leen di delloowaat mbir mi ne leen bëgg ngeen ko waaye man bëgg naa ko waaye ngir ngeen wan ne ma bëgg ngeen ma yóbbu foofu ngir. baykat yi ma mën leen a waxal seen soxla sàmmkat yi ma mën leen a waxal seen soxla nappkat yi ma mën leen a waxal seen soxla ndaw yi nga xamante ni jamono bu ne ñoo ngi jël gaal yi di dee ci géej gi seen dëj yooyu ñi nga xam ñoo dee ci géej gi seen dëj yooyu ñun dëj yooyu dinañu def incha allah yëkkati sunu kàddu fàttali conscience ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo yor réew mi ne leen loolu warul woon a mën a ne te mënatul nekk dootuñu ko nangu. ndaw yi Sénégal ëpp leen nañu leen ni ñu amee solo ak réew mi ni mu amee solo ak ndaw Sénégal ni mu yàggee am solo ndawu Sénégal bëggatuñu mu jël gaal di dem ci géej gi ndawu Sénégal bëggatuñu mu jël désert bi di dem naan day dem Espagne waaye magi Sénégal liñ ci bëgg mooy ñu dalal seen xel ne leen mën ngeen dem noppalu tool bi du boy moo tax ñun waxuñu benn yoon alternative générationnelle ñun alternance waxuñu sax alternance générationnelle waxuñu sax alternative générationnelle ñun solidarité la ñuy wax entre les générations moi je suis très bien placé pour le dire parce que ma maam moo ma yar saa bu ma ko daan tàggu di ñibbisi fii ci dakaar dafa may wax ne ma yaa ngi may tàggu rek wéetaay di ma gane gëw ma conflit des générations li ma gëm mooy il faut faire tomber les murs pour construire des ponts entre ces générations entre ces intelligences on a suffisamment construit de murs entre nous faut maintenant construire des ponts Et il n'y entité dans cette, dans cette nation. amul politicien professionnel amul koo xam ci boppam la nekk amul selfish amul individualiste amul koo xam boppam rek moo ko yitteel koo xamante ni mën na tere jëmm yi nga xamante ni defar Sénégal moom moo leen yëkkati ñu egg ci barab yooyu nga xamante ni fa la ñuy defaree Sénégal te jàpp nañ ne assemblée nationale nag wax dëgg yàlla barab bu mucc ayib la pour waxtaani réew mi barab bu mucc ayib la pour defar réew mi Serigne daf daan wax ne li yées ci kilifa. mooy sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek sa seen xel jël la waaw waa Sénégal maa ngi leen di laaj kan moo fi am soxla xelam dem ci assemblée nationale ne bu ci àddoo mu faju kan mu mooy am soxla ci Sénégal fii may wax ak yéen gaz de moo ngi ñàkk ci réew mi fii may wax ak yéen démb de dund nañ ci loo xam réew mi loo xamante ni fàttalikuma fu ñu ko fi dundee mooy journée sans sage femme sans blouse blanche waaw ndax dégg ngeen ci assemblée nationale ndax dégg ngeen ci commission bi yor la santé au niveau de l' assemblée nationale Serigne Fallou nag moom moo wax loolu nee kilifa bu ne war ngaa ëppale sa bopp sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la kon nag kilifa war naa assumé responsabilité bi mu am kenn waxul ne soxla yëpp dañ koy faj waaye ngal la waslu ci àq kon parenage bi sénégalais yi ñëw ngeen ak doole. bi ñu yëngoo rek ñëw ngeen waaye gën leen ñëw nag ndaw yi Sénégal nañu wane ne capable nañ magi Sénégal bëgg nañ ngeen jox ñu quitus jox ñu caution seen caution morale gunge ñu ba nga xamante ni dinañ egg ci barab boobu na mu gën a selle taxawal leen taxawaay bu mucc ayib taxawal leen taxawaay boo xamante ni Sénégal dina ci jóge daal wuti nag yoon woo xamante ni yoon wu am solo lay nekk leneen li nga xamante ni dinañ ko wax. mu nekk loo xamante ni lu am solo la mooy amuñu benn nu sommes libre de tout de toute partisanerie actuellement politique nekkuñu ci benn contingence politique amuñu tamit benn engagement politique ci quelque bord que ce soit li ñuy def mooy tracer une ligne envisager une ligne boo xamante ni dañ koy construire boo xamante ni dañ koy liggéey ak ces sénégalais ces sénégalaises yi nga xamante ni sonn nañ ci bipolarisation bi nga xamante ni constaté nañ ko dans cette dans l' espace politique sénégalais machiavélisme bi nga xamante ni gis nañ ko loolu tamit dañoo foog ne tey jii war nañoo nekk dans un effort de co-construction war nañoo laisser toute la place au débat démocratique war nañ ci bàyyi place à l'idée à la pensée à la réflexion stratégique bari na ay kilifa yu ma xam yu nekk ci réew mi mënatuñoo àddu sax ci débat publique te pourtant ay borom xam-xam lañ senegal defal leen lépp te mënatuñ ci àddu ñun xam nañ ci lu bari kon ñoo ngi ñaan rek ne defar senegal rek la ñu bëgg defar senegal rek moom moo ñu yëkkati defar senegal rek moo ñu ñor ñun ñi ñëpp ñu ànd kenn ku ci nekk waroon naa mën a toog ci suma place bii tey ñoo ma ko gën a mën ñoo ma ko gën a xam ñoo ma ko gën a bëgg seen bëgg Sénégal sax damaa jaaxal. seen bëgg Sénégal sax daf ma jaaxal donc patriotisme nag dañ ko donn Sénégal dafa am ñoo xamante ni dañu sacrifier seen dund yépp pour Sénégal El Hadj Omar Foutiyou Tall lu mu dajul pour Sénégal amul Thierno Souleymane Baal la révolution torodo lu mu dajul Sénégal amul waaye gis nga ko ca élégance ba ba mu defee révolution ba pare dafa jox Cheikh Abdoul Khadir Kane ne ko yooyu yaay gouverner waaye nga loolu du du du njëriñ loo fekkee waaw donc ñun sunu bët foofu lañ ko teg na Amérique ñuy tuddee Abraham Lincoln di tudd George Washington France tey jii tout le monde veut être gaulliste ndax De lekk ndeysaan taxawaay bu am solo ba mu defoon ba nga xamante ni Allemagne jël na France téye ko ci loxoom mu ne déedéet français yi lii mënuñu ko seetaan jóg leen ñun ñooñu lañu teg suñu bët dañoo bëgg père yooyu ñu revendiquer ko ñooñu duñu leen nier ci suñu histoire